bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa ala sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh fi lbidaaya ataqaddamu bi jazili shukri wa taqdiri wal irfan wal irfan bil jamil ila daairati muqaddimati al xidma ala xusni ishrafihim ala xusni ishrafihim ala hadihi al jalasat ramadaniya al mufida wal maidatayni wa ishrafihim ala al maidatayni اللتان اللتين إحداهما يقدم فيها ما يغذي الأرواح والقلوب والثانية يقدم فيها ما يغذي الأبدان في كل ما في كل مائدة يجد فيها المتحلقون حولها ما يشتهون bokki jullit yi fi teew ak ñi topp jotaay bi fu ñu mën a nekk ginnaaw bu ñu leen nuyoo nuyoo lislaam ñi ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ci weeru koor wu tedd wi nga xam ne man allahu alayna bi bi tafayyu fi diyaalihi te yàlla baaxee nu fekke ko daaw mu baax nu ren itam ñu teewaat ko ñi ngi ñaan mu may ñuy teew ak at yu bare bare te kenn bañ a manqué te lu ñu ci jëf mu nangul nu ko ginnaaw loolu ni ko mbokk mi waxe rek tomb bu ñu fas yéene waxtaanee gi yéen mooy rishwa الرشوة مظاهرها وآثارها على الفرد والمجتمع الرشوة ñu ko borom xamas waxee musallasa la dañuy wax rishwatu di wax rushwatu di wax rashwatu wala di ko wax ger tubaab yi di ko wax corruption loolu nag mbir la moo xam ne mu doyo doy waar la te am ay feeñukaay bari na ay feeñukaay yoo xam ne ku xool danga ko gis ku déglu danga ko dégg mu tasaaroon lool ci société yu bare bare tasaaroo ci penc yu bare bare te am ay jeexit yuy delloo gannaaw jeexit yoo xam ne day màbb waaye du tabax day delloo gannaaw nit ki jëm nit ki nga xam ne kenn kenn la nekk membre ci penc mi di delloo gannaaw itam penc mi te loolu ku seetlu da nga gis yàqu-yàqu ger nag ci mustalahul quran karim mooy alfasaad ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون lépp lu yàqu-yàqu boo gis ci jiir yi ak géej gi loxal nit a ja tàbbi loxal nit ñi ñoo ja tàbbi kon fasaad ci mustalahul mustalahul Qur'an moom mooy mooy mooy rashwa fasaad nag mën naa nekk alfasaadul arabi wala mu nekk alfasaadul muassasi fasaad bu ñu ko waxee mooy corruption bi léeg-léeg ñi nga xam ne ay fonctionnaire yu ndaw lañ diggante citoyen bi ak ak fonctionnaire bi mooy dox seen diggante loolu mooy alfasaadul arabi waaye léeg-léeg mu nekk itam alfasaadul muassasi yi nga xam ne ay institution la waaye loolu li muy tegtal li muy wone rek mooy ne ndeke doomu adama doomu aadama mënut a dund moom rek ger pour ger ger ngir mu am fokk mu dox diggante ñaari nit jërima suna iya la ndax doomu aadama yàlla daf ko bind mu nekk ictimain bi tabax maanaam ci ni ko yàlla bind dafa nekk ku sociable fokk mu jaxasoog yeneen i moroomam yeneen i nattangom door a mën a dund mënta dund moom rek ci beru loolu moo waral ger mënta am ci lu dul ab société boo xam ne ay nit dafay nekk di fa dund am ñu leen di àtte lu ñuy wax état moo tax fu ñu ko gisee ñaare rek ci diggante responsable lay doon ci état bi ci ci koo xam ne day yor service public ak citoyen simple bi nga xam mooy borom maslaxa mi nga xam ne la muy jël di ko jox kooku muy tudd rachi kiy jël di joxe moom moom la jox rachi ki muy jox mooy almurtashi kiy jël li mu koy jox mooy rashwa rashwa nag dafa bari tudd tur léeg-léeg ñu tudd ko softu léeg-léeg ñu tudd ko albirtil soxtum bari na lu mu rot ci alquran sunu borom di ci ŋaañ yi yahudi yi nga xam ndax ñoom ñoo njëkk a jërimatu jërimatu rashwa ñoom ñooy ñi ko njëkk a tasaare ci kaw suuf sammaawuna lil kadibi ak kaaluuna li suxti loolu moom yahudi ñoo ñoo ko ñoo ko njëkk a def ci kaw suuf te yàlla ŋàññi leen ci ci boo demee ci suratul maayida mu ŋàññi leen ci bu baax a baax lawlaa yanahum rabbaaniyuun wal ahbaaru an qawlihim al ithma wal kalima suxta labisa ma kaanu yasnaun kon ger ci société lay mën a am ci ci keppaaru état lu ñuy wax état ñuy atte kiy joxe mooy rashi ki koy jël mooy almurtashi li mu li mu koy jox moo tudd rashwa loolu nag day yàq ndax ki nga xam ne jàpp na ne moom dafa am alalam wala moo am baatam nga xam ne li mu bëgg rek lay xool intérêt boppam rek nam ci saa xam na ne bu bu ca bëggee bu ca bëggee bëggee jot ci li mu bëgg xam na xam na ne ci poosam benn mu jaar ci poosam wala mu jaar ci nufuus nufuusam moo tax ak nufuus ak nuquud ci ñaar yooyu la gerte mën a amee moo tax ñëpp société yëpp ñoo condamné ñoo ko société yëpp ñooy ñooy xeex gerte société bu bëgg a dem ca kanam bu ne doon nangu ger ndax ger day yàq jikkoy société ger day tax ab société suufe day tax ay institution nërmeelu yàq seeni jikko te jikko kat bu ñu dee wax nit jikko tax bu ñu dee wax aw xeet seeni jikko ñoo tax ne ko kat ba waxe wax muy shawqi wa innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu ger kenn waru koo woyofal ci biir loolu nag ngir waxtaane tomb bi mawdu wax bi kon nii lañ koy séddalee mooy gi ñu ginnaaw bi ñu xamle lan mooy ger ci luxa te mooy moo mooy mooy rashwa mooy mooy ñu ngi ko jële ci richard mustaqun min richard mooy ab mooy baag li li nit ki yor ci teen baag bi muy yor ngir am ndox ci leen jëlee rashwa bi jaay na idla ndax day day yor li ñu yor day day day weesu lool kiy gere day am lu muy joxe ki muy ger ndax am na am na lu muy séntu ci moom ci ci ci richard googu lañu ko jëlee yar na it maanaam soxtu comme ni ñu ko waxee te yahudi njëkk ko njëkk ko tasaare ci kaw suuf ak li ñuy wax al birtil te mooy al xajarul mustaqil birtil mooy doj woo xam ne li ñu naan saan gi nii nga xam ne responsable bi moo xam xaadi ji àtte la wala responsable ki nekk ki yor benn service public da nga bëgg ci moom dara loo xam ne du sa àq ci boobaa nag ñaar yépp am bakkaar muy raché ak murtashi yépp dañu am bakkaar nga bëgg loo xam ne du sa àq nga bëgg cee jot am loo ko jos jox ngir saaña ko gémmiñam ngir mu dummuyu ca loola moo tax des na ko tudde sottu di ko tudde birtin ak atteem ci sharia al islamiyya ginnaaw ba ñu ko xamlee ci léegi moo loolu mooy maanaam loxo mi mooy lu mel ne baag la booy yor di indi ndox waaye bu dee ci istilaax ci sharia nag mooy mooy lépp loo xam nit ki daf koy joxe li ibtaali xaqin aw li ixqaaqi baatil li ngay joxe danga caa bëgg a jot àq joo moomut wala nga bëgg caa xañ nit àqam xañ ca aji néew ju doole àqam loolu moo tax axraaf yépp ak société yépp bañ ger di ko xeex bu ñëwee ci charia islaam yi nag dañuy gis ne charia daf koo ŋàññi lool sunu borom dafa ŋàññi ger boo demee ci suratul baqara mi ngi naan wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili wa tudlu biha ila alxukkaami li taakulu fariqan min amwaali naas bil ismi wa antum taalamun bu leen fopp seeni alal bu ngeen di demee ci attekat yi di yoor ni ngeen di yoore baag di fopp sa alal di ko gaaral attekat bi ngir mu atte la lu dëgg jox la àq joo moomu loolu mu jox la àq àq àq kii boo moomul loolu loolu moom la imaamu zahabi yi wax ne imaamu zahabi yi nee na wa tubloo bi ila alxukkaam ay wa tarshu la la laa tubloo bi amwaalikum ila alxukkaami wa tarshuhum biha kay yaqtaa lakum xaqan antum taalamun annahu laa yaxillu lakum ñu ñu ñu ñu ngeen fopp seen alal di ko jox attekat yi pour ñu leen di jox àq joo xam ne yéen xam ngeen seen biir ne àq jooju seen àq moomu leen ko kon charia islamiyya atteeb gerte sharia dafa xaraam sharia daf ko xaraam ngaññi ko baax a baax naka noonu sunna ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne laana allahu rashiya wal murtashiya am benn riwaay wax ne dane war raisha kii joxe ger ak ki kay nongu ak ki nga xam ne mooy dox seen diggante mooy mooy mooy moom lañ mooy mooy courtier bi daal nga xam ne mooy def courtage mooy facilité diggante kii ger ak kii kii kii nongu ger ak kii gere ñooñu ñëpp ñoo tolloo bàkkaar te xam ngeen ne laxnatullaahi moom mooy yàlla soril la yërmandeem kon ger lu lu bon a bon la lu xaram naka noonu ijmaa ibnu Qudaama nee na mboolem ulamaa ul umma ijmaa nañ ci ne ger dafa xaram kon daal ger lu xaraam la ci al kitaaban wa sunnatan wa ijmaan mu bari nag ay suwar ak i mazahir am ay feeñukaay bari na ay feeñukaay lool ci société bi ci majaal boo dem rek daanaka boo demee ci majaalu taalim muy établi établissement scolaire yi danga des na ko fa seetlu danañ gere ci ger responsable yi fa nekk ngir ñu taswir ay shahadat wala am ci ñoo xam ne dañuy fab asile asilatul imtihanat mooy examen yi bu jubee ñu fexe ba asile yi ñu fab ko mooy laaj yi mooy question yi ñu ñu fab ko di ko ñu ger leen ñu di ko jox élèves yi di ko war a def ñu war a dem examen te fekk dab ga du jot loolu xeetu ger la loolu danañ ko seetlu ci majaalu taalim naka noonu majaalu sixa lu mel ne hôpitaux yi itam lu seetlu nañ fa ger bu lu baree bari moo tax itam bari na scandale yi ñu fi dégg te li ko war a lépp mooy ger ndax fop ñoo xam ne war nañoo war war nañoo def seen formation ba am qualification te ger rek dugal leen amuñu qualification bi ñu waroon am bu ko defee bu ñu ñëwee di sàggane malade yi duñ am qualification duñ leen mën a toppatoo te loolu bis bu set ñu gis ko ci réseaux réseaux sociaux yi ak wasaayilul i'lam toujours ñu dégg scandale yi mel noonu loolu itam ger dana ko waral wala koo xam ne day miin am am am ay relation rek ci ministère ba wala ñoom fa xam nomination yu mel noonu loolu loolu ger dana ko waral moo xam alal nga joxe wala li ñuy wax service camarade la wala baatu kilifa loolu day tax place de place yi ña fa war a nekk duñ fa nekk te loolu itam day yàq ab société ni mu amee ci secteur santé ni lay amee ci secteur éducation bi yàqu-yàqu yu bari te loolu la muy conséquences yi muy juree ci alal fardu wal mujtama moom itam ku seetlu da nga ko gis ndax bu fekkee ci majaalu taalim la ñu taswir shahadaat yi nit ñi fa am qualification yi ñu yaakaar ñoom amuñu ko boo ëllëgee loolu conséquence ñoom danañ ko subir ñoom moom ñoom moom nit ki ci boppam waaye société bi itam société bi muy dund mooy pénc bi mooy asaar yooyu yu négatif yooyu jeexit yooyu itam day feeñ ci société bi ndax dana feeñ ci bu ëllëgee place ba ñu ko teg bu mën a doxal liggéey ba ñu gàll ca loosam nit ñi ñoo cay loru bu dee ñu kuy kuy jàngale ña muy jàngale du ñu am du ñu am compétence du ñu am qualification moo xam domaine bu mu leen di jàngale ndax shahada ba dañ koo tasmiroon wala ñu yónnee ko question yi mu geroon ñu jox ko ko mu mu xam ko te datu imtixaan ba jotul naka noonu ci wàllu duwaan secteur douane ak secteur police ak bépp secteur boo xam ne responsable nga fa ku xool ku seetlu da nga fa gis ne foofu ger ma ger dafay am bu baax a baax bokk na ci les les mandargaal loolu léeg-léeg nga gis ay médicaments yu primé yu ñuy jaay yoo xam ne day tasaaroo ci dëkk bi ñooñu nañu def ba jàllale ko nañu corrompre responsable yi na ci frontières yi ba jàllale médicament yu primé yooyu wala ay ñam yoo xam ne dañ koo importé te mu primé warisu ko jëfandikoo wala ay faux-billets wala ñuy jàllale dorog yooyu yëpp ger dana ko waral da da li ger moo koy yombal ñaare mooy tax mu tasaaroo loolu te su boobaa itam conséquence bi société bi ñoo koy subir ñoo ci loru ci médicament yu primé yooyu mooy mooy garab yu yàq garab yu garab yu yàqu yi wala ay ñam yoo xam ne date yi jeex na wara sudu ko jëfandikoo wala ay fóot bi yoo xam ne bis bu set ñu ñu ñu dégg lu mel noonu ci réseaux sociaux yi ak wasaayilul i'lam yi ñuy wax yooyu scandale te loolu li ci yëpp itam càgganteeg li ci yëpp càgganteeg responsable yi wala ñu ger leen wala loo ña ña def loolu buñ ko defee ba noppi leneen te war a fekk sanction yi leen war a fekk lu leen te fekk loolu itam benn baat jóge ca kaw muy nuróos wala muy muy nuquut loolu loolu loolu loolu ci màndarga yi nga xam ne yi ger di feeñe ci la bokk te li waroon a am mooy ki nga xam ne daa nekk responsable ci service public war a yombalal citoyen yi lañu fay soxla nga xam ne loolu dañ ko koy fay ci liggéey wuru wuruta laajaat dara li li li waroon am bu fekkoon ne nit koo xam ne ak bëgg réew ma ngi ci moom wala mu gëm diine waasiu diine bi dëgër na ci moom kon su boobaa du du laaj xaalis la muy bëgg rek mooy dimbali nit ki ngir am ci ngërëmal yàlla taqarrub ilallah li taqarrub ilallah moo waral moo moo war a doonoon moo li koy animé ba tax mu mën a jàppale kooku waaye du ko laaj xaalis ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne masal muminina fi tawaddihim wa wa taraxumihim wa taatufihim ka masal jasadi baaxid nit ki ak moroomi julli moroomi jullitam dañoo mel ne benn yaram rek da cay metti cër yi ci des yëpp dañ koy yëg waaw yi ci des itam mu ne masal masal masal mumini kalbunyaan yashuddu ba'duhu ba'dan masal mumini kalbunyaan yashuddu ba'duhu ba'dan waxati nan daan ne allahu fi awni al abdi ma daama al awdu ma daama al abdu fi awni axi del la waxati ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi kon nit li la li nga li nga li nga li responsabilité bu ñu la jox place bu ñu la jox nga nekkal fa état ba li nga war a def mooy dimbali sa moroom yi citoyen ci jàpp leen ci loo xam ne seen xàq la àq ju ñu war a jot waaye waroo ca laaj waroo leen ca laaj yeneen dërëm yoo xam ne da nga koy dollandiku ndax loolu su boobaa akul amwaal naas bil baatil la ger kon yëmul ci man mën naa de mën naa dugg ci ci ci fi majaalil xabaar nit itam léeg-léeg justice bi nit tooñ tooñ nit di ko won ne ko maa la gën a dëkk ci dëkk bi wala maa la gën a gudd loxo ger ki nga xam ne mooy juge bi pour mu àttal ko lu du dëgg comme ni mu rote ci aay watulu bi xaylal xukam li taakulu farixan min amwal nas bil baq bil bilis mi wan la moom loolu itam justice bi seetlu justice bi lu bëree bëri ñu ngi koy jàmbat ci ñoo xam ne dañ leen di tooñ ba noppi jaay leen doole loolu itam bu amee suñu réew yàqu-yàqu lay jur danañ ko seetlu itam ci circulation bi lu mel ne police yi nga xam ne dañuy taxaw circulation bi dérégler circulation bi léeg-léeg nit ñëw la ñuy laaj ci këyit du ko matal wala mu def benn infraction boo xam ne daf ko waroon a sanctionné waaye bu ko arrêté ba gaare ko bu ko laajee permis mën na am mu génne mille francs wala deux mille francs rox ko ci permis bi jox ko ñu gis mu delloo koy këyitam loolu itam yàqu-yàqu bi muy jur mooy nit ñi di doxee nu leen neex tiit yi nga war a am doo ko war a am boo waree visite technique wala oto bi war a baax yooyu yëpp sa yoon lu ci nekk mën ngaa dawal sax sans permis ndax yow xam nga ne li dara du la ci fekk ndax am nga relation wala am nga xaalis boo mën a gere te loolu yëpp nag fi muy dellu rek mooy sunu société dafa am lu ñuy wax ay ay ay léeb wolof dañ naan wolof wolof de dafa léeb ni comme kudd doo lakk wala loxoy loxoy kajoor day weesaloo wala njariñ loo fekke yooyu ay proverbe la wala ay léebuy wolof yoo xam ne léeg-léeg ay njuumte ne ci nekk te ñoon loolu léeg-léeg dañ ciy dellu di ci dañ dañ ci dañ ci référé wut di ko ut ko ba koo def bëgg mu ñuy orienté mu orienté suñu dund te léeg-léeg njuumte di ci am ndax njariñ loo fekke ci gisinu lislaam day njuumte ndax lislaam ci bopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf la woon daf ne woon bu saa doon taxaw ba fii yeddi ahadikum fasila mu am jëmbat lu muy jëmbat na ko jëmbat kon nit du def dara rek ngir njariñal boppam loolu anaanee la yi ci des itam comme kudd doo lakk itam kii xalaat loolu mën naa mën na ne am naa lu am naa am naa relation wala am naa loxo bu gudd rek lu ma neex naa ko def loolu dana poussé nit ki muy muy jëfandikoo ger yooyu bokk na ci dawaaxan yi li ci des itam mooy mooy bokkul waa diini yi nit ki ñàkk diini ndax nit ki bu gëmee day dekk di dajeek borom mu di ko xisaab mu gëm xisaab gëm dekk su boobaa dana ragal ak tooñ du bëgg a tooj day fexe ba diggam ak boromam rafet diggam ak ci moromam rafet su booba dana moytu ger bu baax a baax kon ki nga xam ne radiya billahi rabban wa bil islami diinan wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan kooku dana moytu gerte kon doxul waaye sa diine bokk na ci lii tax nit ki di jóg di jëm ci gerte bokk na ci loola itam al ananiya mooy égoïsme nit ki nga xam ne njariñal boppam rek xalaatut njariñal mbooloo mi xalaatut lii defar société bi ndax ki nga xam ne daa war na fay ay impôt te impôt yooyu buñ wëllëgee dañ ciy defi hôpital di ci defi hôpital di ci defi école di ci def ay centre de santé di ci defi tëli su su su su bañee fay impôt yooyu dem dugal ko ci poosu responsable bi kooku itam nekkul koo xam ne ku gë patriote la li ñu wax patriotisme dëgg-dëgg li mu laaj muy nit ki gëm réewam bëgg bëgg réewam bëgg société am avancé kooku mu def loolu ndax loolu ngay def dañ ko war a delluwaat ci liy jariñ mbooloo mi waaye bu fekkee da nga ko dugal ci poste responsable bi wala nga dajeeg police de circulation bi mu leer na la ne jaar fa nga war a jaar am sa këyit yu mag bu oto bi amul visite technique wala oto bi ñu war koo gaare organes yi màggat na war ko ko dawal ngay gere di ko dawal di di di di lor ay nit boo dawalee mu accidenté wala pono bi toj ay nit loru ci loolu boo gëmee yàlla waaye si xol diini bi dëgër ci da nga xam ne loolu responsabilité la te rey nit rey nit yoo xam ne teyoo ko la la ca war ci biyee ku ne xam na ko kenn ku ne xam ne lu bii sa gis téeméeri giléem wala ñaar wala junni xar wala ñaar téeméeri nag loolu mooy mooy biyee ku rey nit te teyoo ko te sàggan ci bañ a toppatoo sa oto gere ba di la di ca def lu ca neex ëllëg mu jur mu jur ay accident ay bakkan rotte ñu loru ja na nga xam ne loolu ci saw loos la teg bàkkaar boobu ci saw loos la tege gis nga li tax gere bon yonent yàlla Suleymaan bi Belxiis bi koy bi mu ko yónnee hadiye moom dafa jàpp loolu ger daal ne atumidduna ni min maal fama aatani la xayru mimma aataakum bal antum bi hadiyatikum tafraxun ibnu kasir dane qawluhu taala atumidduna ni min maal li atrukakum ala shirkikum wa mulkikum bal antum alladina tamxaadun lil hadaya wa tuxab ama ana fala aqbalu minkum illa al islaamu aw sayf da ngeen may ger di ma yónnee haddiyee ngir ma bàyyi leen ci seen bokkaale gi ngeen nekk ak seen nguur jeng bi ngeen nekk waaye man ger du ma jenguloo yéen yéen ay jeng ngir ay ay ay hadaya ak i lu leen di jox ngeen def seen bopp loolu waaye man loolu taxumaa jeng ndax li ma li ma yàlla defal moo ëpp dool loolu waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla rëbb na arrachiya wal murtachiya ak assaa yi baynuma mooy kii def courtage te mooy samsara courtage lu dagan la wàññi bu dee ci lu dagan waaye bu dee ci lu mel nii nga xam ne dangay dangay facilité ger bi ki bëggoon a dugal ay phobie ci réew mi di lor nit ñi wala muy dugal ñam yu périmé yu yàqu wala garab yu périmé ngir aljasha ak ananiya maanaam foqale gu mu foqale ak itam égoïsme xalaatul xalaatul mbooloo mi xalaatul wér-gu-yaram nit ñi jëmmi boppam la xalaat ak poosam yow moo ko ci jàppale yéen a bokkub àtte yéen a yem moo tax rachiye raichi moom itam mook rachi wal murtachi ñoo bokkub àtte bokk na ji ñi ger di feeña ni ma ko waxoon dem corrompre juge yi mu àtte la lu dëgg ngir mu jàng ci àtte bi wala li ngay jox responsable bi na ci établissement scolaire bi ngir mu jox la la laaji imtixaan yi njëkk njëkk njëkk waxtu wa wala mu jaay la ab shahada yooyu yëpp wala douanier bi nga xam ne moom itam dafa na ci frontière bi nga corrompre ngir jàllale sa marchandise yooyu nga xam ne day lor nit yooyu ci mazahir yi la bokk bokk na ci itam ñi nga xam ne dañuy defal intervention yoo xam ne amuñu compétence ci majaal bi nga xam ne fa lañ bëgg ñu tarchix leen fa nga xam ne loxo boobu lañ naan comme kudd doo lakk rek day daal duggaan loolu lay orienté nga jëfandikoo baat wala nga jëfandikoo baatu kilifa wala nga jëfandikoo sa alal ñu nomee nit ci barab wala bokk da lay politique la ndax ger dem na ba ci domino politique lii mooy mooy intixaabaat yi bu ñëwee achat yi ñu def achat de voix yi fab nit jox ko xaalis ngir mu wateel la te wate waroon doon diggante waroon dem sa nga waroon ci am ak conviction ak xalaat sa borom waqimu shahadatillah ndax ndax wate shahada la waaqimu shahadatillah wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbu nit ki ñëw jox la xaalis ngir nga watal wala mu jox la xaalis ngir nga bañ a wate loolu itam koo ko def am nga bàkkaar loolu xeetu ger la suuratul min sóori rashwa ndax xeetu ger la loolu lépp bokk na su boobaa seen loolu day suulu ndax dañuy xam ne jëru ko dal ginnaaw boo boo boo jàngee ba wala nga mën a xalaat génn xalaat yu am njariñ kenn du la kenn du la faale ndax am na koo xam ne moom am na lu gën a gaaw yow du la jaral sonn day tax nit ñi tayeel day tax nit ñi tayeel kenn dutu xalaat kenn dutu parlu kenn dutu xereñe la muy def ndax da nga xam ne am na lu la ci mën a génne mooy ger mën la caa génne te itam doo am fiiraange itam fiiraange day rey fiiraange ci ci ci ci ci sam réew waaw mooy chonrul intima chonrul intima bi nga bi nga war def ci sa mujtama loolu lay rey ba dootoo am fiiraange ci réew mi dootoo am fiiraange ci dëgëru institution yi réew mi ndax dañ dañ dañ naan réew réew mi moom alfasaad xas na tasaaro rek lu neex waaye def ko am tudd dool ak ah yooyu su boobaa réew mi day yàqu secteur boo dem scandale rek nga fi dégg loolu day tax itam wa min sàmma bu saabu masaalewul moom bi shalal day mujj intérêt yi nga xam ne mooy intérêt général bi day mujj nekk lu nekk lu nekk lu sem bu doon bu doon loxo boo xam ne lo ni ni ab loxo di semee ba borom mënulu caa jëfandikoo dara day mujj intérêt général bi nga xam ne mooy moom moom la ñëpp bokk loolu lépp day yàq ndax réew bu dee réew mu su mel na suñu réew mi nga xam ne wutoon nañ ay amoon na organes yuñ créé lu mel ne OFNAC ak yeneen ñuy créé tudd tudd tudd ko enrichissement illicite yooyu yëpp dañ koy taxawal waaye ger bu ger te saaroo ba sori ci nit ñi lool moo tax yooyu du mën a dox ndax bu ñu ko bëggee doxalee tam buñ doxalee tuuti buñ doxalee tuuti rek daal di épingle ay nit ñoo xam ne jàpp nañ ne ñii war a siloon a jàpp ñu daal di ciy delloo gannaaw kon loolu loolu la ger di jur day tax itam nit ñi dutuñu am itti yu kawe day tax itam ay élection cim réew élection yu jaar yoon du fa du fa mën a am ndax ñi nga xam ne ñooy responsable yow war a àtte na ca kaw mën nañ leen a gert ñu sàcc ci élection yi loolu lépp mooy gert da koy indi kon nag waaw bu loolu amee lan mooy pexe kon lan mooy pexe pexe mooy delluwaat ci ci diine jàngal nit ñi diine conscientiser conscientiser conscientiser nit ñi jàngal leen diine jàngal leen bëgg sam réew ñu gëm yàlla jàngal leen ak doylu ndax li li gën a xiirtal nit ci muy jublu ci di gere wala muy nangu ger léeg-léeg mooy dox mustawal maisha maanaam niveau de niveau kii niveau de vie bi muy dund mu gis ne moom am na ñeneen yeneen yeneen ñu ngi liggéey loolu feneen wala ñoo xam ne ñoo ko ëpp salaire moom ndax loolu dafa tuuti ñooñu ëpp ko salaire di am seeni kër yu baax di dawal seeni kàr-kàr bu bu amut ngëm yàlla bu dëgër wala yaruñu ko amut yar bu dëgër ci ak doylu su boobaa loolu mën na ko yóbbee mu dugg ci wàll mbirum ger waaye li li ko li nga xam ne mooy turuxul ay laaj li nga xam ne moo moo moo mooy saafara ger yooyu bokk na ci jàngal nit ñi seen diini yar leen jàngal leen ci bëggum réew ba pare bokk bokk na ci itam ñay def loolu ñu leen di siiwal képp kuñ ci jàpp ñu bañ ko mëpp mëppal waaye ñu siiwal ko kuñ ci jàpp itam ci loxo ci poos buñ la jàppee la ca war ñu def ko sanction yi ca war moo xam dañ laa war a tëj moo xam dañ laa war a laaj alal sanction mën naa nekk alal mën naa nekk kaso mën naa ne war war a jum laa siiwal itam ba ñëpp xam ko loolu dan dana bokk na ci lii saafara ger te itam ku ñu jàpp ci ger alal da nga yoroon itam da nga jëlee ci ger itam ñu nangu ko delloo ko ndax du alal ju lew alal jooju lewut alal ji du alal du alal ju lew dañ ko war a nangu jarima maaliya la comme ni jaraayim maaliya yëpp mel léegi nag suñu ko suñu ko ki ñu jàpp benn mu mu moom moom mu de moom mu mu mu reconnaître ne moom moom da doon ger wala dañ ko doon ger su boobaa loolu loolu loolu loolu dutuñ soxla dutuñ soxla loolu loolu doy na sëkk bu reconnaître ne moom da doon ger loolu yes bu tu tasut bi rasuwa loolu ci turuq turuq yi nga xam ne turuq isbaate rasuwa laa bëgg a wax turuq yi nga xam ne ci lañ ci lañuy saxale ger mooy nit ki reconnaître ne da doon gere wala dañ ko wala wala dañ ko doon ger wala ñu am ñu ko seede su boobaa nag li ñuy seedee alal yëpp mooy shaahidayni adlayni ñoo koy seede wala shaahid shaahidun wa imrataani benn seede ku góor ak ñaari jigéen wala shaahidun wa yaminul mudda'i benn seede ak ngiyim ki nga xam ne moo moo moo tuuma la su boobaa ci loolu la ger di saxe maanaam ci lañ jàppe nit wala boog alqarinatu qatia jàpp jàpp loxo ci poos maanaam kiñ doon jiiñ foo bii buñ ñëwee di ko jàpp fekk mu yor ay dollar wala mu yor ay ay ay euro te loolu leelu nekk ko ñu gis ko ci ñu gis ko mu yor ci lim bu baree bari ci këram wala mu yoroon ay ay machine yoo xam ne machine yuy yuy yuy yuy falsifié ay xaalis di jéem a defar xaalis jàpp ko loolu lañ wax lañ wax jàpp loxo ci poos loolu mooy alxarim yu xaatiya ci yooyu ci la get ci la ci la get bi sax am na at mu jot am ay rapport ay rapport mondial yoo xam ne day génn di wax di ger di yàq am na rapport bu génn ci deux mille vingt deux bi rek la cay jiitu mooy dañ ne la mauvaise gouvernance et la corruption sont reconnues comme obstacle considérable au droit à l'éducation et à la réalisation des objectifs mondiaux pour le développement nee nañ corruption ak mauvaise gouvernance toujours ñoom ñaar dafa am lu leen di lu leen di lu leen liyee mooy mooy mauvaise gouvernement ak corruption te mooy gouvernement bi responsable yi tàmm nañ ger kon duutuñu doxale bi réew mi ni ñu ko war a doxale élection sax bu amee la ñuy xalaat mooy sàcc élection yi ressources yi nga xam ne ressources minières yeeg ressources yi fi am yépp la ñuy kii mooy jéem a jéem caa di ci am ay co maanaam jéem doxal doxal sa maanaam doxal sa di ci doxal fa ger ci étranger yi nga xam ne ñooy ñëw war a war a liggéey war a war a liggéey lool du ñu xool société yi gën a mu am compétence waaye këram di gën a jox xaalis li ñuy def support chef poste dañu xool loolu loolu mooy li moo fi gouvernement moo tax toujours fu ger am moo fi gouvernement dafay am moo tax ñoom ñaar dañuy gàllankoor lépp danañ gàllankoor njàng mi gàllankoor wér-gu-yaram bi bu su boobaa résultat li muy jur mooy kenn du am compétence réew mi lépp taxaw moo tax ger dalu dalu xaraam diine yépp condamné ko rawatina diine lislaam ndax diine lislaam diine yi maandu la sunu borom dafa bëgg alxistu am ci kaw suuf moo tax mu wàcc yonente yi yónni yonente yi wàcc téere yi laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitab wal mizan li yaquma annaasu bil qist te ger day tax équitable ak justice du am ci kaw adduna bu ko defee nit ñi ñi néew doole dañuy loru ñe leen ñi leen ëpp doole du ñu leen dimbali te loolu injustice la te moom la yàlla bañ ba wàcc yonente yi wàcc yonente yi wàcc téere yi yónni yonente yi kon ci gàttal loolu mooy tomb yi ñu dajale woon bëggoon ko laajurante gi yéen di sant bu baax a baax waa daayira Muxaddamatul Xidma sant itam mbokk yi teew yëpp di di ñaan li nga xam ne moo jub ci waxtaan nga xam ne sunu borom la li ci dëng itam ci sunu gàttañ la ak sunu néewal waaye ñu ngi koy jëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
jërëjëf sëriñ bi ci thème bu am solo bi nga xam ne doon na ko gaaral comme niñ ko junjee woon rek muy thème de société boo xam ne feebar la boo xam ne ni yàgg na fi jiit na ko lislaam ay junniy junniy at kon bu ñu déggee waxtaan wi danañ ci mën a jàng ne ger dafa am ñu koy séq ñetti parti ñoo fi ne dafa am ku ñu wax arrashi am ku ñu wax arraish am ku ñu wax almurtashi ki nga xam ne mooy ger mooy joxe ger nag comme ni ko sëriñ bi leere ne du joxe rek def service ci la def intervention ci la kon kiy jëf-jëf ji mooy benn parti bi kaneen ki mooy kiy nekk intermédiaire intermédiaire ak kay nangu ger gi kon ñetti parti yi ñooy séq ger kenn ku ci ne mën naa jóge ci yow képp te fekk yéen ñëpp yéenay bokk ak loolu misaal bi ma lay ci jox nga mën koo gis mooy nga nekk ci kër kilifa pour ñu gis kilifa gi yaa fa mën a yóbboo am ku la neexal ne la damaa bëggoon nga yóbbu ma ci sëñ bi waaye bunt ba muy jaar yow nekkoo fa kaneen ku dul ka nga joxoon moo fa ne waaye xam na ne joxoon nga diw waaye bi nga ñëwee mu bàyyi la nga jàll kon yow kooku joxoo ko alal waaye xam na mbir mi mooy li ñu wax li ñu naan teg jiil kon jiil bi xam na ne am na doonte moom jëriñoo ci kon kooku ci kuy jëfandikoo ger te lañ koy boole boo xoolee ni ko sëriñ bi waxee ger dafa nekk fléau boo xam ne feebar boo xam ne diine yépp ko ma sabal waaye yëmul ci diine bépp idéologie wala bépp xalaat bu dul diine sax da ko ma sabal ger rek moom lañ gis muy loo xam ne ñépp dañ cee dëppoog lislaam amul benn xadiya booy jël boo xam ne ni ñëpp dëppoo nañ ci lislaam ba mu des ger tubaab yeeg yéefari juif yi ñëpp dëppoo nañ ci ne ger baaxul day yàq société da koy màbb bu dee lislaam moom dolli na ci ne day tax say jëf kenn du ko nangu danaa ci ñëwaat léegi ndax aaya bi bi mu koy wax ginnaaw bi mu waxee koor wax li'tikaaf wax jëf yu baax yooyu ci la ñëw ci mbirum gerte buñ demee ci benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Taha Abdurrahman di benn faylasuuf bu mag ci falsafatul axlaaq day wax ne dafa am lu ñuy wax al aqlul mujarrad ak al aqlul muayyad ak al aql assalim al aqlul mu muayyad mooy ki nga xam ne ab yonant la jibril da koy dikkal kon xelam am na lu ko dëgëral xel moomu day bañ ger bu dee al aqlul mujarrad mooy ki nga xam ne moom dëgërloowul dara nit ku am xel nii rek di xalaat kooku tamit faaw da ngay bañ ger ger moom nature doomu aadama moo ko moo ko bëggul keneen ci mooy al aqlul musaddad mooy ki nga xam ne moom du yonant waaye xelam dëgërale na ko alquran wala lu baax kon ger nga gis ne xel moo gis rek bëggut ger mooy loo xam ne gaaw na ci màbb ab société gaaw na ci indi fayit ci mbir moo gis moo tax ger mën nañ koo tënkaat ci point yi mooy loo xam ne nii wóor ne amoo ci àq nga fexe ba jot ci ci neexal booy neexal wala service booy joxe wala lu mën di doon mbokk yi ger lu jara bàyyi xel la ndax day loo xam ne nii bu xasee jullit bi bu ko xasee def jëfam na xam ne dara nangoo dund ci day màbbu jëfam yépp te dafa nekk sew sew boo xam ne nit mën na koy def te du ko xam moo tax waxtaane bi am solo baneen bi lii nii xam nga ne sa àq la waaye teg nañ la ci fitna yoo xam ne mënoo ñàkk a joxe rishwa ngir mën cee joxe loolu buñ foog ne du rishwa loolu ger la sa àq la waaye nga ne daal lii am na fitna yoo xam ne nii faawu ma joxe pour mu jàll mbokk yi bu ma joxee misaal bi ñu bari danañ ko mën a dëppaleeg li xew ci suñu jamono ji ndax ñu bari ñu ngi koy jëfandikoo te lislaam ger la ko jàpp xëy na bu may jeexal danaa indi loo xam ne nii day nuroo ger te du ger imam Xardaawi wax na ci ci loo xam ne chaque lien ger la waaye du ger ci suñ système d'application yi ñuy def wala àq ji nga jox ko koo xam ne ni wóor na la moomu waaye xëy na dafa am lum la ca dig rek nga ne naa ko jox xañ ko ay moroy moom yoo xam ne ni ñoo ko ci ëpp àq foofu wala mbir mi ñépp a ci yem waaye nga fexe ba jàppandil ko ko moom ah sa waaye daal sama dossier bi daal bëggoon naa nga jàpp ci nga xam ne da lay wóor ne am na lu lalu ca suuf lii mu la jox bu la ko joxutoon du demee ni mu demee kon dossier bi da nga koo facilité waaye nag la tax nga def ko daa am lu mu la dig wala lu mu la jox waaye bu doonoon dañ koy teg ci ak maanu rek du ca def loolu loo mën a def ba jotte rek moo xam ak joxe la wala jëf la ger lañ koy jàpp kon ci biir loolu danañ xam ne ger ñett ñi ñëpp ñoo koy seq ndax ger dañ koy mën a dugal ci al muamalaat ndax xamoon nañ ne al ibadaat moo fi am ak al muamalaat doonte xam nañ ne jëflante yi ibadaat la ci njàngalem lislaam ndax buñ nee jaamu yàlla lim nekk sa diggante ak sa borom directement moo tax waaye ab jëflante la waaye jëflante yi doomu aadama ci la risho di dugg muy ger doonte xam nañ ne ci njàngalem lislaam sa jëflante bu ne war nga koo dugge noo xam ne ne ak jaamu yàlla lay doon lépp looy def mu bañ a neen nga jublu ci ak jaamu yàlla loolu bu amoon rek richo du mën a dugg fii waaye tamit mbokk yi ñu xam ne ger du jëmm rek moo koy def institution mën naa def gerte inti- institution boo xam dafa am lu ñu ko dénk ngir mu war koo joxe institution bi am lëm mën naa jëfandikoo gerte day am moo xam société la wala entreprise la wala ab agence la wala direction la wala lu mu mat ni doon kon nga xam ne ger ñépp la touché te mooy loo xam ne ni mën nga koo def te doo ko yëg loolu tax alxuraan bi muy melal yahood yi ci seenu mbon bokk na ca melo yo dañuy jëfandikoo ger waaye alxuraan ger dana ñëw dugal ko ci ak lu am waali naas lekk alali nit ñi mën naa ñëw dugal ko ci ak sox muy firi ger mën naa ñëw tamit dugal ko ci alfasaadu fil ardi yàq ci kaw suuf boo xoolee naafeq yi bi ñu leen wax laa tusido fil ardi bu leen yàq ci suuf si lu ñu wax dañ ni ñoom liñ tontu mooy ñoom lu tax ñu leen wax bu leen yàq te ñoom moo ne de li ñu def day defar dañ leen ne bu leen yàq ci kaw suuf ñoom ñu ne nan lañ leen mën a xoole naan bu leen yàq te ñoom seen mission mooy defar loolu li ko waral mooy alxuraan bi muy wax dane fii xuluubihim marad seeni xol feebar da cee am te loolu balaaxa ab alxuraan la ndax xam nañ ne feebar yaram moo koy ame te feebar ci yaram da yàqu yaram feebar ci xol nag sikk sàkk la ak kiñaan ak moy te da yàq ak xol moo tax mu jëfandikoo baatu feebar seen feebar boobu nag moo waral buñ leen lee bu leen yàq ñoom dañu jàpp ne ñii di wax bu leen yàq ñoom ñoo yàqadi seen feebar moo tax mënuñoo gis seenug yàq ak seenug lu bon moo tax alxuraan jëfandikoo baatu feebar boobu kon ku xolam xasa feebar rek xeeti mooy yàlla yii di lislaam di tere yépp dana yomb moo tax ñu ne alxuraan ne ala innahum humul mufsidun bu dee yàq kese kese ñoom ñi ñoo ay yàq ka ndax dañu yàq ci kaw suuf ndax suuf ger da koo jëgalu ger day tax nit ñi dañuy tàyyeel kenn du def li nga war a def kenn du xamati kan moo am compétence ak ku ko amul moo tax alxuraan ne sammaawuna lil kazib akkaaluuna li suxt seeni melo la bokk waaye nag fa in jaa'uuka faxkum baynahum aw a'rid anhum yow yoon te buñ la ñëwalee àtte leen wala nga bàyyi leen ñu dem wa in tu'rid anhum fala yadruuka shay'an duñ la lor mukk mukk mukk waaye nag wa in xakamta faxkum baynahum bil qist booy àtte nag moom àtteel ci ak maandu mën nañoo dugal ba tey ger nga joxe ci mbir loo xam ne ni wóor na lii dëgg la nga joxe dara ngir loola deñ loolu ci ger lañ koy dugal wala wóor na lii ak neen la nga joxe dara pour loole sax kon gis ngeen ger ni mu yaatoo foo dugg rek ger ma nga waaye nag foofu li mat a bàyyi xel mooy ger du li sariya di tere rek sariya li mi tere nga bëgg koo saxal ak nu mën a amee ger la waaye luwaay réew mi luwaay réew mi tamit lim tëral moom it ngay bëgg a wuuteeg loola joxe loo xam ne nii day tax loola sax wala mu tuxu dañ koy dugal ci ger moo tax sëriñ bi ci dénkaane mi daana wax ni kullu maa yaksiru xawaatira ahlil ardi ngeen moytu ko kon loolu li naan alxawaamin an al al kawniya an naqliya yi nga xam ne ñiñ jamonoonteel ñoo ko tër ngir dund gi mën a jàll te juyowut ak lislaam loolu moom jullit bu ne dañ caa war a ànd loolu moo fi andi wa ulil amri minkum loolu ñu bàyyi ko xel ndax yu mel ni seytaane da ciy jaar ba nit ki day gaaw wut ay lay naan lii de nangam lii de ay nit rek ko fi déedéet lépp loo xam tër nañ ko mbooloo mi ànd ci te juyewut ak lislaam rek loolu ñëpp dañ koo war a sàmm ndax comme niñ ko waxee rek ger moom mooy li nga xam ne moo gën a gaaw ci alak aw xeet ndax moom côté yëpp la laal mën naa ñëw ci al fasad al iqtisaadi économie ger mën na koo yàq ba mu yàqu ya xeet al fasad at taalimi loolu lii rek ab thème la da ngay gis ñoo xam ne ni dañ am xaalis dem yóbbu cent mille francs ñu jox leen bakk te bakk dañ ciy am ay at jàng ko yeyoo ko ñu jox la ko waaye nga tëbe fële am sa xaalis ñu jox la ko da lay wóor ne amoo xam-xam bi buñ la ca defloo ab liggéey amoo compétence bi loolu nag réew moom du baax kon xaa iman bil xist day fukk muy ak maanu ak maanu amatul foofu wala kii moo lay jàngal sa bàyyi am na xaalis xam nga ne mi ngi ci jafe-jafe yi dund nga ne weer wu ne maa lay gàddu deux cent mille francs kooku du la mas a may not bu bon not bu baax bu mu la may ger la te bu yàggee tamit lam lay jural mooy réer gu metti te foo dem di fa liggéey doo fa def liggéey bu baax kon ngir société bi mën a jag ci wàllu enseignement jàngale ci wàllu économique dañ koo war a jox ñu ko yeyoo buñ nee yeyoo nag mooy ñu ko yeyoo ci wàllu jikko te xam ko looloo tax Yuusuf jàngal nañu ko yow buur bi de damaa bëgg nga jox ma section finance ak ministère de l'agriculture damaa bëgg nga jox ma ko mu ne ko waaw lu tax ma war la koo jox mu ne ko ñaar yi dafa daje ci man dama koo xam te dama am confiance amin alim hafiz kon ci biir loolu alxuraan dañuy jàngal ne xam rek doyut am jikko ju rafet rek doyul ngir mën a sàmm bi da nga koy xam yor jikko ja ngir loola mën a dox yoon wii nag ci la Sëriñ Tuubaa jaaroon muy defar nit ku baax ndax insaanun saalix mooy safaanu insaanun faasid nit moom benn day baax wala mu bon te lii ñuy waxtaane muy ger ñu ngi ci biir ak yàqute nit bu baaxee rek du mën a jëfandikoo ger kon ger moom képp ku koy jëfandikoo da ngaa yàq te inna allaha la yuhibbul mufsidin loolu rek war naa tax ñu bàyyi ko kon Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee programme bi mu teg mooy ñaar mooy nit ku baax nit ku baax nag mi ngi koy jaare ci ñaar tarbiyatul jism wa tarbiyatul aql yaramu doomu aadama moom lañ ca mën a génne mooy kàttan kàttan guy mu tax mu mën a liggéey ba mën a denc yenn gàllankoor yi nga xam ne da koy xeemeemloo ba muy dugg ci jikko yu suufe yooyu baneen bi xel mi mooy mu yar am xelam ci xam-xam ak leeru dëgg ba mu jomm yenn yi moo tax bu ñu gënee xóotal dañ naan ger daal surtout suñ jamono jii ñu toll xeex ko weesuwul ñaar ñaari option la benn nga defar nit ñépp bañ baax nit ñépp buñ baaxee ger du am ñëpp buñ baaxee ger du am wala nga ne ah waaw nit ñëpp de kenn mënu leen a defar ñu baax léegi nag damay defar ñenn ñi ñu baax li ci des lu ma koy mottalee système d'informatisation mooy fexe ba informatiser lépp lu tax ma ne informatiser ndax informatique mooy loo xam ne nii mën naa détecter lu ne lépp lu waay di nëbb mën na koo détecter te nag mbokk yi képp kuy ger bëggut ku ko gis amul kenn kuy ger bëgg mbooloo mi gis ko kon boobaa day nekk shay'aani mutakaamilaani day am complémentarité seen diggante ay nit ñoo xam ne nii dañuy baax ba pare ñu informatiser lépp muy mën a détecter manque manque yi ba loolu ñu doon daw du am waaye nag ci biir loolu ki yore wàllu informatisation bi tamit ku jara formé la ndax buñ ko formé wut mën naa dugalaat gert ci biir yëf yi te loolu comme ni ko sëriñ bi doon waxe gis nañ ko ci suñ système douane bi suñ système politique bi bépp wàll boo gis ci société bi rek ger fees na fa dell dell dell te moo ne ñi koy def ñépp de boo leen ne du ngeen ab jullit mën nañoo xeex ak yow te alxuraan li mu jàngale mooy ger day màbbu jëf day tax sa jëf kenn du ko nangu kon lu jara bàyyi xel la kon ñaar yooyu moom dañ cee war a bàyyi xel bu baax te boo xoolee pays yu développé yi lii dañ cee sonn li ñaan informatisation ba ci seen mbedd yi foo mën di jaar dañ ko wutal ay système de caméra yoo xam ne ni amul benn jëflante bu bon booy def te du ko détecté ndax ñaar yooyu rek mën a kon war nañoo xalaat ci ay wasail yoo xam ne nii du defar nit rek ndax defar nit moom kenn mënu ko defar nit ñëpp mënta ne yàlla moo ko bëggiwut noonu moo bëggiwut jamono mel noonu yàlla li ñu sant ci jamono rek mooy fexeel ba boo fi jógee rëdd fi rëdd woo xam ne dañ xam ne yaa ko fi rëddoon waaye ñëw pour jamono jag moom amul kenn koo ko yàlla may ndax yàlla moo ko bëggiwut noonu kon ñu ñëwaat ci aaya bi ñu waxoon léegi muy wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili muy aay bu bëri ay farañ fàcc ndax baatub lekk gi mu fi jëfandikoo rek am na maanaam boppam lu tax mu waxut wala taaxusoo amwaalakum seeni alali bopp lu tax waxut alali ñeneen ñi bil baatili nag moo ci dugal ger dugal ci laneen ak laneen ak laneen kon alquran dañoo tere suñuy alal ñu di ko lekk ci ak neen wa tuddloo biha ilal xukkaami xukkaam fii jubluwuñ ci juge yi rek képp ku am pouvoir ci mbir man caa def man caa diw man caa amub dogal mën a faxe ba mbir moom a sotti kooku mi ngi ci biir xukkaam ndax yataxakamu fil asya wa yatasarrafu fiha kayfa shaa da ci mën a soppandiku nu mu ko neexe man caa am décision mën a ma mën a xam loola wëy wala mu bañ a wëy kon danañ gis ne aaya bi mi ngi ñëw ginnaaw aaya yi doon wax ci koor ak li aju ci koor ci ay àtte bi mu paree nag mu ne seen koor yi ma leen doon wax yépp ak seen jaamu yàlla yi bu ngeen bëggee mu nangu da ngeen bàyyi gel aaya bii rek la ci teg alxuraan moom amul lenn luy ñëw par hasard lii bu ma ko dinnee teg fi lii dana fi jekk déedéet lu fa tegu lu ne dafaa war a tegu ndax xikma tax suñ borom teg ko fa kon aaya bi ñan lay waxal ñi gëm ñépp lay waxal ak jamono juñ mën a ne ak barab buñ mën a ne lan moo tax ñu ne bu leen lekk bu leen lekk mooy bu leen ko jël ci loo xam ne nii du seen àq lan moo tax nag mu jëf jëfandikoo baatub lekk ndax xam nañu nit ki pour mu dund li koy mën a may pour mu dund li ci gën a am solo mooy lekk nit moom bu lekkul day faat moo tax suñ boroom jëfandikoo baatub lekk te waaye jël rek lañ ci jublu bu dee baatil gi mu wax bil baatili ci ak neen mooy lépp loo xam ne ni sariha dëgënul nga jël ko ci alal nga ne ko ah lii daal sama waa ji moo ma ko may rek moo ne ma daal garaawul déedéet lislaam gisul noonu doonte da koo neex muy teeyu bakkanam te lislaam dëgënalu ko tamit ci baatil lay dugg riba da ngay gis ñu koy jëflante seen teeyu bakkan teewut mu araam kat njëgu sàngara ger mii ñu doon waxtaane wala kaay seedeel ma ci mbir mii boo paree danaa la jox nangam muy shahadatu zuur loolu moom lu ko gën a rëy amul ci bàkkaar yu mag yi la bokk wala sàcc jël alal la te sa bakkan teeyu ci këf ci la bokk kon bil baatali gii dafa yëmul ci ger rek dafa ëmbaale lii lépp ger nekk ci biir kon aaya bi li mu bëgg a wax mooy bu leen jëlante seeni alal wala ngeen jël alalu jàmbur féetewoo ko ci lu dul àq ngeen bëgg koo jaare ci ay neen ay yoon yoo xam ne ni yoon yu tigul fenn la ndax mën ngaa tëgg sa plan ba mu jub te wóor na li lii moom jëmut fenn ba nga jël ci alalu jàmbur ci baatal lay dugg ndax man ngaa nax nit ki ba jaarale ko ci te bu doon démb doon tey du ci jaar loolu ci baatul lañ koy dugg lañ koy lañ koy tudde te loolu nag yomb na ci mbokki tubaab yi mën nañoo def seeni plan layal ko bam rafet ba nga dugg ci contrat dugal la ba sa alal génn ca te doo ca mën a dellu ginnaaw te da lay woon li ak neen la baatul gii la suñu borom di junj fii ba tey kon daal dafa yëmu fii lépp loo xam ne nii ak tooñ la wala ak jalgate ba nga jël alali jàmbur ci noo xam ne ni lislaam dëgënalu ko doonte da koo neex rawatina bu ko neexul ci albaatil ci lay dugg léegi nag lu tax mu ne am waalakum seeni alal ndax buñ ne lekk alal mën ngaa lekk sa alali bopp mën ngaa lekk alali kaneen léegi nag bu dee seeni alal loolu lislaam dafiy bëgg a jàngale ne communauté bi dañoo war a bennoo dimbalante solidarité ba alali sa moroom nga jàppe ko sa alal sàmmal ko moom it mu sàmmal la sa alal loolu tax suñu boroom moo tax ma naan la baat bu mu jëfandikoo rek dañ cay mën a gis yu bari ci wàllu balaaga ci xeeti jàngale yu bari kon laaf gi mu laaf baatu kum boole koog am waal day gën a wane ne lii ak tere la ginnaaw seeni alali bopp laay wax alali jàmbur yi dama koo jàpp seeni alal kon nag lii moom ak tere gu jot la kon suñ borom ni ngi koy wane foofu ndax suñ borom bu terewut lii bu dee yow alali jàmbur joo gis man koo daganal keneen tamit defaat noonu keneen defaat noonu société fu mu jëm day yàqu màbb ger nag lii doomu lay def société da koy màbb da koy yàq day tax ñëpp tàyyel kenn du xàmmee ku am compétence ku am àq ak ku ko amul ñëw ci wa tudduloo biha ila al xukkaami li taakulu farixam min amwaali nnaas bil ismi wa antum taalamun kon ba tey suñ borom mi ngi melal fii waneen melo ci ak aklu amwaali nnaas bil baatil loolu liñ ci jublu alxukaam mooy képp ku kàddoom mën a wéy ci mbir nga jox ko alal ngir mooma ngir mbir mooma mu sotti la doonte sa àq am na ca sax waaye yaa ngi yeneen yéen a ceem àq ger lay tudd wala koo xam ne nii daal lii daal ngir mu faju wala ngir lii mu sotti faaw nga jaar ci moom nga daal di koy jox as tuut ngir loola mu jàppandi comme ni ma ko waxoon sànq rek bu dee yéen ñëpp da nga ko ko yombalal waaye yombalal gi dalaa jox dara wala dalaa dig dara te wóor na la bu loolu amutoon bu ci yamee ñëpp du ci jot mooy li may waxu léegi rek ger dafa sew moo tax yàlla di digle sàmm di diine dafa laaj jamono ju ne foo toll mbir mooy dugg nga xam la ca lislaam wax bala nga jaa dugg ndax nekkul jullit di sonn suba ak ngoon waaye ngay def jëf joo xam ne ni dana tax sa jëf kenn du ko nangu wala ñu koy delloo wax dëgg yàlla yellut ci ab jullit rawatina ci koo xam ne nii day wuyoo Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul kon aaya bi mi ngi noonu kon ngay dem ci ab àttekat di ko neexal ngir mu feeñal dëgg jëm ci sa côté ba tey ci loolu lay dugg ba tey ci loolu lay dugg ngir mu gaawal àtte beeg yooyu yépp rawatina nag bu dee da nga ko koo jox mu xam ne lii moom ger la loolu moom loolu waxatuñ ko kon ak lu am waalin naas bil baatil moom kon rishwa dugg na ci bu yàgg ak laneen lu mel ne moom kon baat bi dafa nekk baat bu beru waaye léegi-léegi day dugg ci yeneen baat yoo xam ne ni yeneen yàqu-yàqu da ciy dugg innama jazaau alladina yuxaaribuuna allaha wa rasulahu wa yasawna fi l ardi fasaada gis nga lim ko méngaleel xeex ak yàlla ak yonente bi tey yàq ci kaw suuf wa ida xiila lahum laa tusidu fi l ardi li ma doon leeral léegi ci naafeqi ñooñu ñëpp lii ñuy tere nii di ger dañ ko daa jëfandikoo ida daxalu xaryata nafsadu ha ulu baqiyatin yanhawna an ilfasadi fi l ard wala tusidu fi l ardi baxda islaaxi ha kon fépp fu suñ boroom tudde ak yàq rek xamal ne maa ngi lay bàyyiwaaloo xel ger kon lañuy jeexale rek lañ waxoon ñu xam ne ñett parti yi yu sët nañ koy bàyyi xel al rashi al raish ak al murtashi ñu koy bàyyi xel jamono ju ne waaye nag dafa am benn boo xam ne nii danaa ci ñëw tëjeeg moom boroom xam-xam bu mag boobu di alxarbaawi andi na ko ndax loolu mën naa yor chaque lu ger waaye duñ ko jàppe ger lu dul lu dul ger da caa duggaat moo lu mel ne ñu am benn plateforme boo xam ne nii dañ cay joxe ab liggéey ñu ne pour nga bindu ci plateforme da ngay joxe cinquante mille inscrire kon ngaa inscrire ci plateforme cinquante mille boobaa cinquante mille yooyu kenn du ko tudde ger loolu mooy pour nga mën a am accès ci service bi rek ñu mën a def sélection bi xool buñ koy jox loolu am na chaque lu ger waaye du ger waaye nag buñ xasee inscrire ci plateforme bi nag yow miy def sélection bi nga am ñoo ca tànn ñoo xam ne ni yeyoowuñ ko nga jox leen ko ngir luñ la dikk nag boobaa yaa ngi def rek ger boobaa yaa ngi loolu dafa nekk sew sew boo xam ne dafa dafa mat a bàyyi xel ndax jamono mi ngi doxee doxin woo xam ne nii buñ bëggee ne lépp ger la duñ ci mucc waaye lii moom day am chaklu bi ñu bàyyi ko xel bis buñ gisee ne liñ doon bañ ci ger amu ci chaklu bi rek la te duggagoo ca biir loolu kenn du ko tudde ger lii moo am ci plateforme de location yi pour boo bëggee wut kër ñu la kër sàngam gi ku ko bëgg de da nga joxe cent mille dugg ci ndax ñi ko bëgg dafa bari loolu fi ne ni courtier yi sax misaal lañ ci ndax ñoom seeni service lañuy jaay seeni service lañuy jaay mën nañoo def plateforme boo xam ne nii courtier léegi courtier léegi fi ne daanaka genre entreprise lañ koy def entreprise boo xam da lay wutal logement bu dee forme boobu laay wax nga xam boo bëggee kër da ngay ñëw inscrire foofu bàyyi sa xaalis ñoom it ñuy jëfandikoo seeni coono seeni service lañ lay jaay waaye nag bu dee ba ngeen yem ci àq nag ñu bëgg a gënale xool ku am àq ak ku ko amut yooyu moom foofu la ñuy wax ger kon daal lii ci gàttal ngir jullit bi mucc ci day xam sirru wujoodihi alal ard li ko bàyyi ci kaw suuf li ko bàyyi ci kaw suuf mooy defar ndax buñ fàtte ne dañ ñoo lancé depuis bu mag waaye suñ boroom xanaa suuf dañ fay yabal ñoo xam bu ñu demee dañ fay yàq rek ñoo xam dañ fay lekk riba di jaay sàngara di ger di lekk riba di jëflante ci lu bon yii rek la suñ boroom doon bañ défi boobu la ñu lancé woon ñun nag ñoo ko war a yëkkati nuñ ko yëkkatee mooy assalaax baax baax ak baaxal assalaax wal islaax ak li ma waxoon léegi ñu bàyyiwaale xel doxinu jamono ci informatisation ndax kuy def corruption moom bëggul ku ko gis la koy dimbale bañ koy bañ koy mën a gis informatique rek la mën a doon bu dee mbooloo mépp amoo ci ñu baax ñëpp loolu da nga mën a def waaye diine dafa demee noo xam ne ni bu dee jaar nga fi ñu la jaarloo doo juum waaye suñ jamono jii li ëpp ci nit ñi dañuy dund diine nim leen neexe da ngay gis jullit boo xam ne ni dem na ba am juróom fukki at xamul ci tawxiid dara dara dara dara waaye loo ko wax ci wàllu business mu jommal la ci te boo demee ci wasaayaay sëriñ Tuubaa yi nee na damaa waral ci képp ku aju ci man moo xam góor la wala jigéen juróom benn fukki melo ak juróom benn yii ci suñu borom yëpp ngeen xam ko mokkal ko peek ko dénkaane boobu moom lu ëpp ci murid yi fële lañ ko teg kon jullit bi li mu war a njëkkee mooy al iman bi tawxid jàng tawxiid ba xam nu ñu gëme yàlla ak yonante yi ak malaayika yi ak ñi demee ne ñoom ndax loolu boo ko defut da ngay yomba yóbbaale ndax boo jàngee tawxiid danañ la wax melo wu ne noo koy layale ba gëm ko boo xasee am tawxiid nag moom li ci des lépp day yomb ndax da ngay xam ne lii ñu doon waxtaane muy ger yàlla mii moo la ko tere te lam ca digee du lu baax bu dee sa gëm yàlla wér na moom bàyyi ko rek ngay mën a def baneen ba mooy la koy mot li mooy al islaamu bil fiqhi jullit moom bala nga koo tudd da ngay jëfandikoo fiq fiq nag mooy jaamu yàlla yi ñuy gis julleeg woor ak bañ a def lu araam ak yooyu loolu nag mënoo koy def ba pare di jëfandikoo gerte mënta ne say aani mutanaaqibaani lañ dañoo dañoo ëndu baneen ba ca des nga xam ne moo manqué ñu bari ci suñ jamono ñaar yi moom yàgg naa am waaye Sëriñ Tuubaa nag bi mu ñëwee bu mujj bi moo ko gën a yitteel mooy al ixlaas al ixsaan def te yàlla tax def te yàlla tax nag mooy lépp looy def nga bàyyi ci xel yàlla bu dee jullit bi li muy def mi ngi ciy bàyyi xel yàlla du mas a jëfandikoo gerte ndax du fekk loo xam ne yàqu su sene koo koy def xanaa loolu nag mooy li Sëriñ Tuubaa andiwaat rek mooy al himmatu al himmatu ak al ixlaas ak ak tasawuf wuutewuñ dara mooy sa pas-pas nga yëkkati ko jëme ko ci yàlla te yàlla tax lañ koy tënkee nag mooy daal jullit bi war naa xam ne diine ñett ko composé li may faral di wax rek al aqaid pas-pas al ibadat jaamu yàlla ak al muamalat waaye li ëpp ci jullit ñi nag muamalat moom dañ koy teg fële dañ naan daal kii mën naa jaamu yàlla gëm na yàlla waaye ay jikkoom sax bu ñaawee duñ ci kii julli gu bari ak pas-pas bu rafet jëflante bu rafet da koy jiitu te jëflante bu rafet ci ab jullit mooy xeeti jëf yu suufi yi lu mel ne ger ak lekk alal nit ñi mu moytu ko kon loolu la wax lañ waxoon ne nañ ko xëy na taalif xëy na thème bi gën naa yaatu lii waaye def mel ne waxtu yi jot na kon xam naa ñi ngi sant Serigne Modou Xabbaan ñu doon gaaral thème bi di thème bu am solo boo xam ne war nañ koy indee ko indiwaat ndax phénomène boo xam ne nii li mu yàq ci société bari na yéen ñi teewoon ñëpp ñu ngi leen di sant di sant waa daayira mu xaddimal xidma ci jëf ju rëy jii nga xam ne boroom dëkk bi lii dong nga taxoon mu sanc dëkk bi lii ngeen di def nii xëy na laneen mën nañ koo def de waaye weesuut lii weesuut lii ndax daana wax ne dëkk bii de lenn dong moo tax ma sanc ko jàng ak jàngale jàng ak jàngale te yàlla xam ne bu doon toon tubaab bii fii lay toog di jàng ak jàngale moo tax ba mu ko mënut tamit ñëpp xam nañ ne def na lu ko ca wut sëñ Mbàkke Buso ñoom ñi ngi fi sëñ Daabu Abdourahman sëñ Mamadou Lamine Gaye la man ñëpp sëñ Mbàkke Buso ñëpp dañ doon jàng ak jàngale maam Ceerno Birahim looloo tax bis mu ne woon sama dëkk bee di Tuubaa képp ku ma fa nekkal di jàng ak jàngale ma nekk ci sa jiba loo soxla daj ko waaye ku ko deful nag nga yam ak naari gànnaar yi ngay tuñ tuñi di ko wër ba sonn ca doog di ko am waaye nag loolu leen rek koy maye mooy boo koy def nga am pas-pasu ne lii sëriñ Tuubaa moo ko waroon a def ma ko ciy wut te lii ngeen di def génnut loolu kon nag du yell ngeen woon ñu ci lu mel nii ñu mën caa wax te duñ ca wax ndax dañ koy jàppe liggéeyu Sëriñ Tuubaa ndax du yàlla dañ koy def muy